waxtabir na nga xalam na nga konte minel mafahimi ci dégg yi mafhumu charte mafhumu dégg-dégg faqat dong <clears throat> dafa am na ñu tuddee al mafahim mooy li nga xam ne danañ ko déggee ci baat bi waaye tudduñ ko mafahim nag ñaari xaaj mooy mafhumu muwaafaqa ak mafhumu muxaalafa mafhumu muwaafaqa mooy lañ cey déggee tam dëppoog baat bi maanaam tam leer naññi dañ ko gën a leeral mafhumu muxaalafa nag <coughs> mooy li nga xam ne danañ ko déggee ca baat ba waaye mu wuuteeg lañ tudd mu wuuteeg lañ tudd maanaam contraire lañ tudd <clears throat> am na loo xam ne ma fa mun muwaafaqa mooy li nga xam ni euh, lañ wax yow am na leneen loo ci déggee loo xam ne ñoom ñaar ñoo tolloo wala lañ cee déggee sax moo gën a yee ma fu mu xaalafa nag moom dafay wuuteeg baat charte nag ci mafhum mu xaalafa la bokk ki bu ñu waxee ne <clears throat> ku jaam man yaabudillaha yasaat ku jaamu yàlla dana texe kon texe gi la say mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy charte pour texe loo cay déggee mooy ku di yàlla doo texe mooy contraire ba man yaabudillah yasaat ku jaamu yàlla da nga texe loolu loolu charte la waaye contraire ba mooy ku jaamul yàlla doo texe loolu mooy mafhum ka gis nga nu mu wuteeg <clears throat> moom nag téeréem bi mafaahim yam ca compté mooy mafhumu charte comme ni ñu ko waxe <clears throat> soo indee loo xam ne charte la rek contrair ba yow man nga ko cee déggee comme ni mu waxee ne ku jaamu yàlla da nga texe yow nga déggee si ne kon ku ko jaamu du texe saa yu andee ma fu mu charte rek loolu lañ ciy déggee waaye nag ma fu mu waafaqa moo gën a kawe ma fu mu charte parce que ma fu mu charte ma fu mu xaalafa la te ma fu mu waafaqa mook lañ tudd ñoo tolloo wala buñ tolloowul sax moom moo gën a yey lañ tudd ci àtte bi su boobaa borom téere bi dana nangu loolu parce que li bëgg a wax mooy ma fu mu charte lay nangu ak yi ko faree kaw waaye i faree suuf ma fu mu charte moom yooyu konte wut ko ma fu borom téere bi dana ko konte mafhumul غايه دانك كنت اك مفهوم الحصر كو كي دانك كنت نده نيوم نيو كاي مفهوم شرط <clears throat> امنا تاني ني دال لي بروم تيري بي بغا واخ موي مفهوم شرط موم دا فاي دا فا فالابل فوكو فيك ريك مانغا سي ديغي لان كونترير با waaye yeneen mafaahim yi taqawut ko leeg nga mën cee déggee loolu léegi-léegi doo ci déggee yeneen mafaahim yi noonu la demee ñu sharxa ko pour mu gën a leer mu ne al mafaahim dégg-dégg yi jamu mafhum mooy jamu mafhum mooy benn dégg-dégg mafaahim mooy ay dégg-dégg wal mafhumu mafhum dégg ma mooy la nga xam ne dal la tegtal naa lay ci moom allaf du baat laa fi maxalli nutqi waaye nekkut ci barabu tudd maanaam tudduñ ko li nga li lay baat bi di tegtal ta tuddoo ko loolu mooy mafhum ay lam yadul la tegtalul ali ci moom bi man tuuqii ci lam tudd nekkul lam tudd ci la wanee la ci la ay mbir mi déedéet waaye lam tudd am na loo ciy déggee lam tudd am na leneen lu mu lay tegtal te tudd ko loolu muy mafhum la lay baat bi di tegtal te tuddoo ko loolu moo di mafhum wa huwa qismaani mafhum ñaari xaaj la mafhum muwaafaqa mafhum bu dëppoo wa mafhum mu xaalafa ak mafhum mu xaalafa lan mooy mafhum muwaafaqa fa mafhumul muwaafaqa mafhum bu dëppoo lañ tudd an yakuna mooy mu nekk xukmul mafhumi atteb la ñuy dégg muwaafiqan di aji dëppoog li xukmil mantuuqi ñeel atteb la ñuy tudd mafhumul muwaafaqa mooy la ngay déggee ca baat ba ak lañ tudd ñoo dëppoo benn ñu yemoo benn garaat wala boog la ngay déggee ci baat bu sax gën a yee ci àtte bi boobu moom xismaani ñaari xaaj la faxwal xitaab yi ak laxnul xitaab mafhum muwaafaqa dafa am lu ñuy tuddee faxwal xitaab bi ak laxnul xitaab yi fa faxwal xitaab yi faxwal mooy dëgg-dëgg wax ja an yakuna mooy mu nekk al mafhumu la ñuy déggee ca wax ja awlaa di gën a yee bil hukmi ci àtte minal mantuq ci lañ tudd fawal xitaab mooy yow la ngay ci wax ji moo gën a yee sax la nga tudd ka taxrimi darbil waalidayni ni ki xaraamal gi ñu xaraamal dóor ñaari waajur daal la gi aji tegtalaal yi ci moom nazaran bu ñu xoolee maanaa ci maanaa xawli yi maanaa wax yàlla ju mu wax taala kawe ne fala taqul wax la wu maa ñeel ñoom ñaar maanaam bu leen wan ak ak ak ak xat wala bu leen wax sa ñaari waajur cëm ku la wax lool kay loo ciy déggee mooy bul dóor sa ñaari waajur maanaam dóor gi sax moo gën a bon cëm gi kon foofu moom dóor awla moo gën a yeey min taxrimi tafiifi ci xaraamal cëm almantuux guñ tudd lañ la tudd aaya la ko mooy bu leen wax cëm waaye ndax loolu dafay tax nga ne mënuma leen wax cëm waaye mën naa leen dóor déedéet da ngay xam ne yow si sensé dang si déggee ne ku la wax na ne bul wax sa waajur cëm rawatina bul ku dóor dóor a gën a bon kon ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk ñoom ñaar ñëpp lu bokk mooy mooy dañuy lor waay jur cëm daf koy lor ci xol mais du ko lor ci yaram amma dóor moom daf koy lor ci xol di ko lor ci yaram kon ñoom ñaar ñëpp ñoo dëppoo dañuy lore mais dóor gi moo gën a bon kon dóor googu mafhum muwaafaqa la da nga koo déggee ci baat bi waaye mu dëppoog lañ tudd ñoom ñaar ñëpp dañoo bokk di lore kon ñoo dëpp dëppoo nañ waaye faxwal xitaab la ndax moo gën a yee ci àtti bi la nga tudd cam nga tudd aaye ko waaye dóor moo gën a xaraam moom lañ gën a aaye te tudduñ ko waaye danga ko ci déggee loolu mooy faxwal xitaab ci mafhumul muwaafaqa moo tax ma li am na darba ndax dóor ashaddu moo gën a tat minhu ci cëm fil isaayati ci lor wala xuux ak dëngee waajur dóor a gën a bon kon ku la aaya dëngee wax cëm waajur aaya na dóor ko pourtant waxut bul ko dóor waaye dang ko ci dégg loolu mooy ma fu waafax gis nga ñoom ñaar lu ñu lu mel ni it <clears throat> da ko déggee ci yonentu jàngal gim ñu jàngal lislaam jàngal ñu ne yàlla bu meree aw nit rëbb leen seeni jeexit sax yàlla daf koy merewaale seen ndox bul naan bàyyil seen barab ya boo forombee gaawal daw parce que meram yàlla dafay wàccaale foofu bu fekkee meram yàlla mën naa jeexit loolu te yàlla yërmaane mu ëpp meram kon bu gërëmee aw nit dana def barke ci seen jeexit seen ndox yi ak seen barab ya boo fa jaaree nga war faa sax comme ni nga xamee ne boo jaaree ci barabu bu ñu yàlla rëbb dangaa war a gaaw génn boo jaaree ci barabu bu ñu yàlla gërëm yàgg fa ndax foofu barke dafay wàcc ñee seen ndox tuural bul jariñoo ñële seen ndox barkeelul moo tax ñuy aaye barkeelu bu ñu déggoon loolu man daal xaw ma affaire jaaxal na ma man daal jàng ba pare yu mel nii nga di ko kii man daal jël loolu jaaxal na ma <clears throat> am na ci mafumul mu waafaqa lu ñu tuddee laxnul xitaab laxnul xitaab mooy lan mooy an yakuna mu nekk almafhumu la ñuy déggee ca wax ja musaawiyan di tolloog li xukmil mantuuqi ci atteeb lañ tudd maf mafhumu muwaafaqa am na lu ñu tuddee laxnul xitaab mooy la nga dégg la nga déggee ca wax ja moog la ñu wax ñoo tolloo même garaat nga ne ko comme lan mu ne ka taxrimi ixraaqi maalil yatimi comme xaraamal gi ñu xaraamal lakk àllu jirim ak daal gi aji tegtalaale yi ci moom nazaran buñ xoolee li maanaa ñeen maanaay wax yàlla jum naan inna alladina naka ñi nga xam ne yakuluuna ñu ngi lekk am waalal yitaama àllu jirim zulman ci tooñ fa innama yakuluuna fii butunihim naaran safara la ñuy lekk si seen biir yi wa sa yaslawna sairan danañ dugg safara kon yàlla dafa xaraamal lekk alalu jirim waaye it dañ ci dee génne kon xaraamal na lakk alalu jirim ndax la muy bañ mooy sànq ko lekk sànq nga ko lakk sànq nga ko kon lakk gi nga déggee yàlla xaraamal lekk nga déggee ci ne kon lakk baaxut il faut nga déggee ci loolu ñoom ñaar ñoo ñoo dëppoo luñ dëppoo mooy ñoom ñëpp dañoo bokk di sànq alalu jirim loolu ma fu mu waafaqa la dañoo bokk di sànq allu jirim watan fay neen ixraaq naka lakk musaawin dafa yemoog lil akli ñeel lekk fii itlaafi sànq gi mu sànq alal yatiimi ci allu jirim lakk ak lekk ñoom ñaar ñoo yemoo même daraja parce que ñoom ñaar ñëpp dañuy sànq allu jirim waaye parce que lakk moo gën a bon lekk lakk dafa nekk sànq alal yàq alal ak sànq alalu jirim xam nga sànq alalu jirim bokkut ak sànq alal boo lakkee alalu jirim bii man damaa jàpp ne mafhum euh, faxwal xitaab la ci bu njëkk wax la maanaam lakk gi moo gën a bon sax sànq lekk ko ndax kuy lekk alalu jirim mën naa am sànkut alal ja waaye daf koo sànkal jirim bi mën naa jël alal ji jënd ci dara kon alal ji ba léegi mu ngi des ci loxo nit ñi mu ngi jariñe alal ji benn jariñ na ko moom te mën naa jariñ keneen waaye nag sànkal na ko jirim bi ko moom loolu lu bon la amma lek euh, boo fekkee da nga lekk alal ji mën naa am jariñ na la yow jariñ keneen mais sànkal nga ko ki moom waaye boo lakkee alal ji moom jariñul la yow jariñul keneen sànkal nga ko sa bopp kon foofu sànk alal nga fi ak sànkal ko jirim bi boobu moo gën a bon sànkal ko jirim bi waaye sànkoo jëmmi alal xalal jaa ngi des nit ñi di ko jariñoo kon wax gi mu wax ne lakk ak lekk ñoo yemoo ci sànk euh, déedéet lakk moo gën a bon lekk sax ndax lakk daf koy sànkal jirim bi sànk jëmmi alal ji waaye lekk moom daf koy sankal jirim bi waaye sànkut jëmmi alal ji ndax mën naa jëriñ keneen wala mu jëriñ waa ji ko lekk lu mën a xew daal ñoom ñaar ñëpp dañoo dëppoo ci sànq alal kon bu la yàlla waxee bu lekk alalu jirim dañ ci dee génne kon bul ko lakk moo gën a lakk lakk moo gën a feeñ sax lekk maanaam moo gën a yeewoo ci àtte bi sax dafa yëg si bu njëkk ba foofal xitaab daal la jàpp ne moom lay moom mooy maye <clears throat> bul lekk alalu jirim moom bul maye alalu jirim benn la xam nga mën nga ko lekk bu la yàlla waxee bul lekk alalu jirim bu alalu jirim bul ko jël da nga koy sarax miskin bi. àllu jërim bul ko jël di ko may keneen soo ko mayee keneen moo nga lekk ko ñoo yem parce que sànqal nga ko jërim waaw foofu dañoo yemoo moom pour man amaa lakk ak lekk moom yemoowuñ kon loolu mooy mafhumul muwaafaqa mooy la nga déggee ca baat ba moog lañ tudd ñoo bokk waaye léegi-léegi la nga déggee ci baat ba ak lañ tudd yemoo comme lekk àllu jërim ak saraxe àllu jërim nañ yemoo ci sànqal jërim bi àllam nga xam ni ñoom ñaar ñëpp ay bu ñu la waxee bul lekk rek mooy ne kon bul maye bul saraxe dégg nga loolu da nga ko ciy déggee te ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk dëppoo ne dañuy sànq àllu jirim wala boog wala boog la déggee ci baat bi sax gën a yee ci àtte ba ni ki yàlla ne la bul wax sa waajur cëm nga ne kon waruma leen a dóor ndax dóor a gën a bon wala ñu bul sànq àllu jirim nga ne kon waruma koo lakk parce que lakk gën a bon loolu mooy ma foomu muwaafaqa <coughs> وما مخالفة نعم ما مخالفة أن يكون ما يمنك حكم المفهوم أتب لنا يدق مخالفا ديوتك لحكم المنطوق نيال أتب لنا تد مفهوم مخالفة ما لنا يدق تي واحدة دفا ووتك لنا تد دفا صفانو لنا تد هو مفهوم مخالف هو مفهوم مخالفة نك عشرة أنواع فك قاجلة كما قالوا القرافي كم نقول القرافي وحيو fukki xaaj la benn mooy mafhumu sifa la ñuy dégg ci baat boo xam ne dafa am melo ndax wa comme fil xanami nekk na ci gàtt sa ima bi aji sàmm azakaat azak gàtt goo xam ne dañ koo bàyyi muy muy sàmm danañ ci génne azak loo ciy déggee mooy gàtt goo xam ni sàmmut bu ñuy yefal duñ ci génne azaka mafum bu mel noonu nag moom du ko compter ci biir téere bi <clears throat> lu mooy léegi-léegi léegi-léegi danay compter mafhumu sifa nga xam ne boo waxee lu mel nii ne comme ne gàtt guy sàmm azaka ngi ci nga dégg ne gàtt gu sàmmul azaka waru ci waaye nekkul daf koo kii daf koo tax ko waaw. mafhumul illa ak mafhumul illa mooy sabab ni ki anti joxal asaaya aji laaj ji lil xaajati ngir ñàkk gi ñàkk kon ñàkk gi moo tax nga jox looy déggee ci wax jooju. mooy bu fekkee ñàkkut bul ko jox gis nga nu ñu wutee kon bul jox aji laaj ji bu ñàkkut mooy joxal aji laaj ji bu ñàkk contraire bi kon ñàkk gi mooy sabab bi tax nga war ko jox loolu mooy mafhumu illa li ñu dégg ngir sabab bi nga teg ba mafhumu charte ak mafhumu charte bi nga xam ne moom daf koy compter toujours ci téeréem mooy wax ji mu wax ne naxu man tataharraku laab na saxat wér na salaatoo julleem loo cay déggee ku laabut julleem wérut yu mel noonu moom daf koy compter ci téeréem wa mafhumu istithna ak ma mafhumu setti naxwa kom qaama taxaw na alqawmu nit ñi illa zaydan lu may zayda. nit ñépp taxaw nañ ba mu def zayd loo cay déggee dégg nga mooy nit ñi tooguñ lu mooy zeyd nit ñëpp taxaw nañ ba mu des zeyd nga dee gis ne kon nit ñëpp tooguñ lu mooy zeyd contraire ba lu mel noonu du ko du ko du ko du ko jàpp ci téer bi bu waxee lu mel noonu yow bul ci déggee loolu loolu la da bëgg wax wa mafhumul xaaya mafhumul xaaya mooy mafhum doytul waaye ni ki atimmu naxwakum atimmu mottali leen asiyaama xoor ilal léegi ba ci guddi gi kon loo ci déggee bu guddi jotee bu leen xoor na ngeen xoor ba guddi nga déggee ci ne bu guddi jotee bu leen xoor mafhumul xaaya moom daf koy konte ci téerim bi ndax mafhumul xaaya moo gën a mu ëpp doole mafhumul charte bi ñu wax léegi kon boobu jàpp dafa bëgg wax ne mafhumu charte ak yi faree ko mafhumu charte yooyu lay compté mafhumu waafaqa daf koy compté comme noonu ma wax léegi waaye mafhumul gaaya bii ma wax it lu mel noonu bu ko indee ci téeréem bi jàppal noonu la daf koy compté wa mafhumul xasri ak mafhum mafhumum takk ndax wax nit ki nga ne innama ilaahukum naka seen yàlla seen yàlla allahu moo di yàlla loo cee déggee mooy kudul yàlla moomu du seen yàlla contraire bi loolu la mafhumu xasru googit daf koy compter parce que mook mafhuumul gaaya ñoo yem benn daraja <clears throat> daf leen di compter ci téere bi soo gisee lu mel noonu rek contraire bi jàpp ko takk nag mooy yàlla rek mooy seen yàlla kon dafa takk nekk yàlla gi ci yàlla rek wa mafhuumu zamaan ak mafhuumu jamono nax wa comme saafatu tukki naa yowmal jumaati bisu àjjuma loo ci déggee mooy tukkiwuma beneen bis bu dul ajjuma maanaam tukkiwuma samedi ma dimanche ajjuma laa tukki loolu moom du ko ci téere bi wala bu koy kii it léeg-léeg la wa mafhumul makaan ak mafhumu barab ndax woni kii jalastu toog na ama amaama zeydin ci kanam zeydin loo ci déggee mooy tooguma ci kanam keneen kanam zeydin rek la toog loolu it du koy compter adat ak la ñuy dégg ci lii mafhumul adat naxwani gi faj li duum dóor leen samaaniina juróom-ñett fukk jël datan ci yar loo ciy déggee mooy bu leen door téeméer bu leen dóor ñeen fukk loolu it bu ko waxee ci téere bi bàyyi noonu mu jàll la nga cee déggee bul ko jàpp soo gisee mafhumu charte daal ak mafhumul xaaya ak mafhumul xasr comme ni ñu ko waxee ak mafhumul muwaafaqa jëlal yooyu daf koy compter mafhumu sifa tamit léegi-léegi mu compter ko wa mafhumu laqab ak mafhumu laqab mooy sant woo moom taaliqul xukmi mooy nga aj atte ba alaa mujarradi asmaai zawaati ci rafleeg turi jëmm yi aj aj atte bi rek ci ay tur rek tegoo ci melo tegoo ci leneen ndax woo nekk nga ne fil xana mi nekk na ci gàtt azakaatu azaka loolu it bul ko jàpp maanaam loo ci dé looy déggee ci gàtt azaka ngi mooy lu dul gàtt azaka waru ci maanaam xaalis ak yooyu azaka waru ci xam nga loolu kenn wax ko moo tax ma fu mu laqab nga yu mel noonu ne gàtt rek azakaan si du tax ñu déggee si ne lu dul gàtt azaka nekkut ci soo gisee lu mel noonu ci téere bi bul ko jàpp waxiya ñoom mafaahim yooyu yëpp dégg-dégg yooyu yëpp hujjatun lay lañ ànd maalikin ci maalik wa jamaatin ak mbooloo mi noonu maa ngi ci borom xam-xam yi illaa mafhuma laqab lu muy mafhumu laqab te moo di ak sant mafhumu laqab bu mujj moom borom xam-xam yi duñ nee duñ ko duñ defuñ ko muy lay nit nga ne fil xanami zakat gàtt azaka ci rek du tax ñu ne lu dul gàtt azaka waru ci déedéet loolu loolu loolu loolu duñ ko ci dégg yeneen yëpp nag danañ koy compter yeneen dégg-dégg yëpp danañ koy compter waaye moom ci téeréem bi mafhumu shart la ci jëfandikoo ak mafhumu gaaya ak mafhumul xasr ak mafhumul muwafaqa ak ñaari xaajam yëpp moom mafhumul muwafaqa فقال وانا بي تي لولو ني مفاهيم دنج لن جفنديكو الدقاق وابن خويري من دات وبعض حنابل اك نين سي حنبلي وجماعة دجال نك ابن غازي دجال مفاهيم ابراهيم ولا في بيت تي اب بيت فقال من سيف واشترت علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصرا اغيا سيف ملل مفهوم صفه واشترط نغا ساتال مفهوم شرط علل نغا سببا مفهوم العله ولقب na nga santale mooy mafhumu laqab thaniya na nga setti moy mafhumu istisna waxudda konteel zarfayni ñaari sarfu yi manam zarfu barab jamono ak barab moy mafhumu zaman ak mafhumu makan wa hasran ak tak moy mafhumu xasri aghya ak doytul way moy mafhumu ghaya kon baytu boobu boko mokale xam mokal ma am yeb moy sif washtarit allil ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصرا أغيا وقوله وهم جملة ثنيا يعني لمنهم بيتهم أي استثناء ميسك وقوله وهم أغيا أي غاية دويت الواي من مفهوم الغاية قال <clears throat> برم تيري بنينا وإنما خصناك جغللنا مفهوم الشرط مفهوم الشرط لأنه نخمم أقوى مو gën a من ci مفاهمين yi يب مفهوم الشرط yi ñu wax moo tax moom la borom xalil konte waaye konte na yi gën a dëgër mafhumu charte comme ni ma ko waxee muy mafhumu xaaya ak mafhumu asr asr ak mafhum mu mu muwaafaqa is ngir yaqulu dana wax bii ci chart charte baadu man ñenn ñi nga xam ne laa yaqulu duñu wax bi xëyri ci lul mafhumu charte am na ñoo xam ne ni nanguwuñu leen mafaahim yi duñ koy konte jàppee wuñ ko comme dégg-dégg boo xam ne lay la nga li nga déggee ci wax ji loolu lay la am na ñoo xam ne yeneen mafaam mi jàppee wuñ ko ay lay waaye mafhumu charte moom nangu nañ ne la ndax dëgër gi mu dëgër illa al gaaya lu mooy mafhumul gaaya fay noo nag moom yaqul dana wax bii ci moom baadu man ñenn ci ñi nga xam ne laa yaqulu duñ wax bi mafhumu charte ci mafhumu charte am na ñoo xam ne nanguwuñ mafhumu charte sax waaye nangu nañ mafhumul gaaya parce que mafhumul gaaya mu ëpp doole mafhumu charte الا انه لو موي نمفو شرط آه، غايه قليل نيولا لا يتعدد ديك ما واند مو اختصار غاتال فلذلك لو تختاركو باينكو مفهوم غايه مانام بريوت بريوت لو نكاي غيس في وخي ديغا موتاخ مون جاب نو نكاي غاتال مانام بريوت لو بري موي موي اديو غاتال واي بريوت لو نكاي وخي موتاخ تودوت كو مي داف كاي كونتي داف كاي كونتي ba li fi nekk jaxala def na baadum ñenn ñi alxaaya mafhumul xaaya boolewuñ ko sax si mafaaya mi ñu boole ko mi ne mantuuq ci luñ tudd comme atimu siyaam ila layli ñu ne loolu du mafhum luñ mantuuq la dafa mel ni luñ tudd maanaam dafa mel ni foofu yàlla dafa tuddaale bu leen war guddi kon mafhumul xaaya am na ñu ko yéegee sax ci mantuuq luñ tudd di la tudduñ ko nag ndax grade bi mu amee kon mu ëpp doole mafhumu charte وفي رتبة الغاية نكنا شي درجة مفهوم الغاية مفهوم الحصري دق دق تك وقيل وحنا في شي مفهوم حصري يعني إنه هناك مؤمن منطوق تقول مفهوم الحصري أمنا نيونا صح مؤمن منطوق له دو مفهوم كم مفهوم الغاية مفهوم الحصري نيو أب دولي مفهوم الشرط كون بو كونت مفهوم الشرط فمن باب أحرى رواتنا مو كونت مفهوم الغاية أك حصر نكون يعني مفهوم موافق فهم كونتكم ثم قال توف موخ امنو امنو امنو امنو غازي موموي واخ دين من واما مفهوم الموافقه واي مفهوم الموافقه فمتفق لندبول عليه تيموم وهو معتبر من كونتلا عنده فتالف كتب نانا مفهوم الموافقه نيب دبول ني موم ليلى كوم نين كولير لا تي كوماسما واخ تين مفهوم الموافقة برم تيري بي داف كوي كونت كقوله نكي وخم جم وفي باب الحجر سي بون تبهير دان بون سي يگر دان كو غن ولي ولي نيال نا كليفة رد تصرف تصرف مميز دلو سوبنيكو كو خامي دم با خامي waaye dañ laa xiir dañoo xiir sa alal lépp loo soppandiku kilifa gi na xiir am na dura yàq ko maanaam loo jëfee rek te moom am na dara dindi ko dégg loolu luñ ciy déggee mooy koo xam ne nii xàmmeewut nga xiir ko xàmmeewut mu jël alalam soppandiku ci koo ko gën a ci delloo lam def bu dee ku dem ba xàmmee bu soppandikoo ci alalam te dañ koo xiir maanaam daa am ku ko yilif bàyyi téye alalam parce que noosóor yàqkat kooku ku dese la lislaam da koy boole koo xam ni mooy toppatoo alalam léegi lu def rek kilifaam googu am na droit yàq loolu bu gënul ci moom moom mi xàmmee kon ku xàmmeewul nag ñu yéer ko ni ki dox bu soppandikoo ci àllam kooku kilifa gi waxatuñ ko mën na ko delloo kon loolu ma fa mu waafaqa maanaam ki xàmmee bu soppandikoo soppandikoo ki jaaduwut moo tax kilifa gi mën naa yàq loolu waaye ku xàmmeewut ràññeewut dara kooku moo gën a yey bu soppandikoo ku ne xam ne ne soppandikoo kooku moom it jaaduwut loolu dañ ko ciy déggee ci saase bu neexee kilifa gi mu mu mu dindi ko dile waxut ko kon moom da ngay gis ne dafay compter mafhum muwaafaqa ndax xeyrul mumayis ku xàmmewul aw ahraam moo gën a yey ci ñu yàq def fala annahu ànd ak ne moom min baabi nassi mu ngi ci buntu taxi aw il qiyaas wala qiyaas aljali bu feeñ fala iskaala déet lënt bu fekkee mafhum muwaafaqa dañ koo jàppee comme texte rek lu ñu bind wala xiyaas bu leer naa ñi it hmm, hmm, amul benn problème dégg nga maanaam amul lënt ci moom moom moo fu mu muwaafaq dafa leer naa moo tax dañ koy jëfee xëy na looloo tax leer gim leer moo tax waxul ma fu mu muwaafaqa danaa ko jëfee mu wax ma fu mu charte ma fu mu muwaafaqa daf koy jëfee wayen xullaa ñu waxee indoon ak moom mi ne mafhumaat muy bokk ci mafhum yi boo mafhum muwaafaqa xam nga am na ñoo xamante ne affaire bi day leer bañ jàppee ko luñ tudd sax boo ne luñ tudd la kon dañuy xam ne kon tudd na ko garaawut waaye boo ne luñ lu ñuy dégg la ci wax ji moom mafhumu muwaafaqa foofu moom ahra moo gën a yemin mafhumu chart ci mafhumu chart fa kaanoo daf mel moom intabaroo kontee na ko fii nafsi ma wala boog jàppee na ko fii nafsi ma ci kem li nga xam ne nax ñun bi sadidi ñu ngi ci yoonam maanaam comme ñun liñ jàpp mooy ne ku mën a jàpp ku mën a compter mafhumu charte kooku waxatuñ ndax dana compter mafhum mu waafaqa wala déet ndax mafhum mu waafaqa dem nañ ba jàppee ko sax texte luñ bind maanaam dafa mel ni li nga wax rek ndax leer gim leer waaye dëgg-dëgg dafa mel ni mafhum la lu ñuy dégg la ci wax ci waaye comme ko lañ koy déggee ci wax ji tam moom moo gën a moo ëpp doole mafhumu sharta su boobaa moom it dañ koy compter waale soo déggee lu mel noonu jàppe ko muy atte intaha jeex na yaa ni lu mu namm ci waxam jooju ne dafa mel daf koo jàppee comme ñun yoon wuñ nekk fa ka anoo daf mel moom yaqul day wax ne isa tabarat bu isa tabarta boo mu mafhumu mafu mu sharta fa ahra li gën a yeey mooy mafhumu muwaafaqa bu fekkee nangu nga mafhumu mu mafhumu muwaafaqa moo ko gën a yeey ndax moo ko faree kaw وعلى القياس ما قالوا من قياس جنا خمن وحنكني ابن غازي في مفهوم الموافقة في مفهوم الموافقة يقال لن يوخ في مفهوم الغاية في مفهوم الغاية والحصر نينا لي ابن غازي وخن مفهوم الموافقة مو أبو دولي مفهوم الشرط كون سو كون تي مفهوم بيغن سوفي بي أبو دولي من وقت مورا بروم تيري بي بو خوي توبي أي وخم دفاي كون تي مفهوم الموافقة حتى نينا بون قياسي تلوري نون دني وخنه mafhumul gaaya wal xasr ñoom it ñoo ëpp doole mafhumu charte kon ku konte mafhumu charte da leen konte innahuma naka ñoom ñaar mu'tabaraani dañ leen xalam li annahuma ndax ñoom ñaar ala ñoo gën a kawe min mafhumu charte ci mafhumu charte mafhumu gaaya wal xasr lu ñuy konte la ndax ñoom ñoo gën a kawe mafhumu charte wa kullu man qaala képp ku wax bi charte ci mafhumu charte qaala wax na bii maa si ñoom ñaar képp ku nangu ma fu mu saat rek nangu na ma fu mu xaaya wal xasra wal xilaafu wuutee gi fii maa ñaar adam fu moo gën a lott mi ne xilaaf ci wuutee fii xëyri maa ci lu ñoom ñaar wuutee gi yi am ci yeneen ma faay mi lu ñu war a jàpp loolu lu ñu war a jàpp moo gën a néew doole wuutee gi am ci mm, mafhumul gaaya wal xasr fa kaanu daf mel moom xaala wax na on tubira konte nañ mafhumu charte mafhumu charte wa maa ak la nga xam ne moom ala moo gën منو شمو منام بوليغا من وانتبر ولا وانتبر قلم ولا وانتبر قلم نانام نانغو نان من المفاهيم شي ديغي ديغي مفهوم شات مفهوم شات فقط دونغ لا بوغو وانا اك ليكو فري كاو واي دومم كسي كسي كسي ديت نامو تشرو باسكو بو خولي اي وخم داي غيس مو كونتيرن مفاهيم يو خامني دو مفهوم شات مي داي غيس مو مفهوم الغايه ولا مفهوم حصر ولا مفهوم موافقه ولا صلي لك مو نيك مفهوم صفه léegi-léegi moo tax waman tata waman tataba ku topp kalaamul musannifi waxu taarifkat bi zahara feeñ ne la wañeel ko annoo ne moom yaatabiru dafay konte haza lii min al mafhumay ni ci ñaari mafhumi luzuman ci lu war ci taqoo maanaam fu mu tuddee mafhumu gaaya rek wala mafhumul xasr rek dangay gis ne lañ cey déggee atte la bu muy nangu kon moom dafay taqoo mafahim yooyu luzuman ci taqoo di ko comme ni muy taqooy ma fu mu charte ma fu mu mu waafaq na moom waxatuñ ko ndax moo leen gën a kawe ñoom ñëpp fu ma fu mul xaaya ma fu mul xaaya ka xawli yi mu ki ni ki waxam jim ne wal mob tuutatu maanaam kuñ fase ñetti yoon xaraam na xataa ja lu mooy mu dugal awraam ci e, xataa yulija lu mooy mu joteeg moom baalixu na ji jot baax loo ciy déggee ku jot baax bu joteeg moom léegi xaraamatut koo fase ñetti yoon ku jot baax takk ko joteeg moom xaraamatu loolu nga ci dégg xattaa la jëfandikoo xattaa xaaya la jëfandikoo wu chart mais dégg-dégg boobu lu wér la kon moom mafhumul xaaya daf koy jëfandikoo wa ka qawli ni ko xam fil xajri ci xiir al majnuunu dof maxjuurun kuñ xiir la lil ifaqati boobu muy wér boobu muy xiqi dof te ñuy garde àllam di ko topp tool fekk ba muy àndaateeg xelam laa lil ifaqa loolu xaaya la maanaam doytaluwaayu xiir gi mu ngi yem ci ifaq loo ci déggee mooy bu demee ba ànd ak xelam ñor àllam lañ koy delloo te dégg-dégg boobu dégg-dégg bu wér la bu ko xawli ni ko xam tamit ilaa xifzi maali zil ab bi ba ci mën a wëttug alal borom baay maanaam koo xam ne ni waajuram fi ñu xiir ko bu demee ba mat mu kalafit te ñorogut mën a gut garde àllam ba léegi waajur mooy continuer di ko garde àllam loo ci déggee mooy bu demee ba mat mu kalaf ñor nag mën a garde àllam dañ koy delloo àllam كن تا الى غايه لا كن مفهوم الغايه اك مفهوم دنگا نم تودي صح حصر داف كوي جيفانديكو ومفهوم الحصر مثال مفهوم الحصر كقولي نيك وخم جمنان انما يجب نك دنور دنگا انما يجب نك دنور القسم سدلي للزوجات نيال جبري دونغو film bi di fanaan say jabar rek nga war a yemale ci aye mais jaam yi dañ ci dégg ci déggee mooy ku dul jabar ni ki jaam bokkut ci amul aye aye ci jabar la war mais pas jaam jaam aye loolu nga ci déggee mais déggin boobu lu valable la kon moom ma fuumul xasr daf koy jëfandikoo ndax dafa takk aye gi ci jabari kese laa na muraadu ndax li mu bëgg mooy xasrul xasmi takk aye gi fi zawjaati si jabar yi mais jaam bokku ci bu ko ni ki waxam fii baabil xajri ci bunta bi xiir ne wenn maa yox kamu naka danañ fi rusdi ci njub wa ak safaanu njub rusdu mooy ñor mën mën a doxal doxalal sa bopp kenn du la téelal sa ak safaan ba buñ ci wutee alqadaatu attekat bi alqadaatu dafa mel ne moom la dagg ni def alqaatu wala dagg doot gi dugal ko sax ci fu mu dugal dégg nga dañuy xëccoo jub na wala jubut maanaam mën naa yoreel boppam àllam wala mënu ko attekat bi mooy atte xudaat attekat yi al xudaat attekat yi ñooy atte ñooy xool loolu dafa takk atte gi ci lu mel noonu ni eh, attekat bu mag bi rek moom moo koy atte loolu it léegi gis ne keneen ku dul attekat du ku neex rek mooy ñëw ni kii ñor na wala ñorut dégg nga buñ ci wutee hmm? dégg-dégg boobu lu valable la buñ ci yeggee dañ ko gën a kii bu ko xawli ni ki waxam fii ci buntu xajir ba tey ne wey na maa yu baaw naka danañ jaay aqaaruhu pàkk jirim li xaajatin ngir soxla jirim bu ñuy jaay suufam dafay fekk soxla bu mënul ñàkk taxaw maanaam lu nekk intérêt am loo xam ni moom mooy njariñam dégg nga loolu lañ ci génne bu benn intérêt taxut bu ci jiir bi amul benn intérêt waaye daf koy lor jaay ko dagganut te mbir mi noonu la demee ma foomu boobu noonu la demee kon jaay gi daf koo takk ci bu bu amee intérêt jirim bi maanaam mu am soxla wala yu demee noonu kon moom mafumul xasr ak ma mafumul gaaya daf koy taqoo ci téere bi saa yu indee loo xam ne gaaya la rek wala xasr la safaan ba mën nga ko jàpp xam ne noonu la demee loolu atti ba léegi bi mu waxee ne kuñ fase ñetti yoon daganut lu mooy mu amaat jëkkër jëkkëram sëy ak moom jàppal na rek bu jëkkëram sëy moom daga na te yeneen ma faay mi moom yeneen dégg-dégg bu budul charta du xaaya du xasr du mafum muwaafaqa yeneen ma faay mi moom mën naa ñàkk lañ cee déggee mën naa ñàkk demee noonu su ma xaala topp mu wax ne wa minal bayni bokk na ci lu leer laa budda du mën a ñàkk an yu sos naa ñu sette mi ma zakaru ci la tudd na ko mafhumul wasfi mafhumul wasf mafhumul wasf it foofu ñu génne ko maanaam léegi-léegi dana ko jëfandikoo waaye ban wasfu alkaay baa ji nekk fi taarifaat ci xamle buy xamle dara melo yam cee indi yooyu dañ ciy dégg ne melo yooyu bu manqué rek mbir mi nekk nekkatul loolu fay naa nag loolu fusuulun ay fasale la aw xawaasun wala ay melo yoo xam ni loolu muy xam ne daf koo yu yuutaa dinañ andi bihaa ci eh, melo yooyu lay di xaali ngir dugal mbir wala ixraaj ak génn mbir kon léegi-léegi buy xam dara indi fa ay melo ñaareel melo yooyu dañ koy compter ndax nga xam ne nii loolu mu wax ne nii ak lii lu mel nii ak nii mooy nii nga déggee si ne bu melul noonu rek du noonu وفي بعض الحواشي كن مفهوم وصف تي تعريفات تي قملة دانو كي جفندكو وفي بعض الحواشي نكنا جيانا شي فقالي وأظن أن يرتنا لولو مما قيل مي بوكس لو قمت تنكن نكون الشيخ محمد بن فتو جريكو الشيخ محمد بن فتو نانا يعتبرو دارين قلم يعتبرو دارين قلم مفهوم الشرط مفهوم الشرط لزوما تي تقو أك مفهوم الغاية أك حصر أك قناة موافقة ويعتبر ذا انقام غير ضرر من المفاهيم ci مفاهيم الجواز ci dagan yeneen مفاهيم yeneen dégg-dégg yi léeg-léeg mu wax lañ ca déggee di noonu léeg-léeg mu wax dara te fekk dégg-dégg bañ ci war a déggee du noonu loolu la loolu lañ tënk ci Cheikh Mouhamad bun Fatou ne dafay xalam ma fu mu charte luzuman xalam gu war waaye wax na léegi ci gannaaw ne raaya ak xasru luzum la tamit daf koy taqoo taqoo gu war su andee loo xam ne raaya la wala charte la wala xasr la rek xamal ne noonu la yeneen mafaahim nag daf koy dañ koy compter jawaasan ci lu dëgër mën naa am muy noonu léegi-léegi mën naa am la nga ci du noonu waaye zaru dana feeñ jaare ko loolu bi taamuli kalaam yi si serantal waxam waxam loolu te njëkk na ko ci loolu cheikhuna suñ sëriñ abu abdullahi al quri wax na loolu inta jeex na wama xaaloo la nga xam ne wax na ko an ibnul fatu jëree ci ibnul fatu zakaro tudd na ko al bisaati bisaati tudd na loolu ne ibnul fatu loolu it na loolu dégg kon daal lim la wax ne la na nga xalam mafhumu shart xamal ne ak la gën a kawe mafhumu shart te mooy mafhumul gaaya ak mafhumul xasr ak mafhumul muwafaqa yeneen mafaahim yi du dang koy dàq-dàq ak mutlaqan léeg-léegi mu wax dara te la nga cee déggee noonu la léeg-léegi la nga cee déggee du noonu su ma xultu topp moo ne way ne maa yoxtaaju naka danañ xaajoo li haada ñeel lii fi ma wasafoo ci loo xam ne melal na ko bi sifatin ci melo goo xam ne ci melo ولم يصرح تليرل بحكم أتى بحكم ما خلا تحت ابن خمني ويدنا من تلك الصفة شيء لمرام أنا براني وحنا جنجم أنا مين المفاهيم يا خمني دفندي أي دفندي أي ملا شمسال دي خملة دارا bu ëndee melo woowu dégg nga la làmboowul melo yooyu rek loolooy safaanu la nekk ci melo yooyu melo yi nii la kon nii la la làmb wut ak melo yooyu du noonu balaa ñuy wax nag ni la làmb wut melo yooyu mën naa am du noonu mën naa am ba léegi noonu la mooy moom ñëwut ci lu làmb wut melo yooyu wax ci jox ci atte waaye bu indee loo xam ne am na ay melo gannaaw gu mu indi yoo xam ni nii melo yooyu nekkut fa maanaam da xam ne melo yooyu nekkut mu indi ko jox ko atte comme atté bu njëkk bi dañuy xam ne benn la bu ko joxee beneen atté ñu xam ne beneen la parce que foofu moom mbir mi leer na xam nga yaa ngi dégg lu ma bëgg a xam te tey su ma ne ku njool ki mooy ku tedd ki loolu ci déggee kon ku gàtt ki nekkul ku tedd mais su ma ne ku njool ki mooy ku tedd ki ba ne waaye ku gàtt ki ku tedd la ñoom ñaar ñoo bokk atté boobu su ma ne ku njool ki mooy ku tedd ki ku gàtt ki ku xaw a tedd la nga dee gis ne moom nekkut. nekkul ku ku ñàkk tedd waaye xaw tedd kon bu tuddee loo xam ne làmboo na meloo ba pare la làmboor mel yooyu mu wax atteem dañuy xam boobaa mu mbir mi leer na boo xur atteem nag léegi-léegi ñu nangu ko léegi-léegi ñu dàq ko waaw naa nekk na fii waju anam goo xam ne saa tam bu matee wasallama tam mucc kaana nekk na raqiqal xawaashi di wax ju neex a dégg wax ju oyof ay kéeraay maanaam wax ju neex a dégg woowu moom ayekul mooy mu nekk araada na mun a bi itibaari mafhumi chart ci xalam gi mu xamal xalam mafhumu chart doona xeyr yi waris lu dul moom tanziloo wàcce ko manzilatal mansuus wàccuwaay luñ bind fa tansarifu mu wàññeeku ilayhi sumu alquyudu tënk yi wal mafhumaat ak dégg-dégg yi wa waa gi niru yooyu insiraafa comme ni muy wàññeekoo lil mantuqaat ñeel lu ñu tudd Euh, ñeel lu ñu tudd almalfuus lañ lañ lañ lañ lañ tudd bia ci moom dégg nga maanaam nee na am na beneen anam mooy ne taarifkat bi boo déggee mu ne mafhumu charte la konte lu dul mafhumu charte konte wu mu ko lim ci namm mooy mafhumu charte moom dafa yore ma maanaa luñ tudd dafa yore dëgëre lu mu bind nga xam ne boo bindee dara la cay mbind moomu na muy leeree ak lay mbiri di delloo ci moom dégg-dégg ci nit ñi am mafhumu charte it maanaa ñu bind la yore xam ni sañ sañu la boo xasee bind dara la nga am sañ sañ def ko yépp bu mafhumu charte ñëwee da ngay am sañ sañ def ko foofu amma yeneen yi nag mafaahim lañ yoo xam ni am na yum ci nangu am yum ci nanguwut am yoo xam ni takkuwut ko yum ci takkoo nag mooy raaya ak xasr mafhum muwaafaq it moom fi baabi ahraa ne na way daa xam ne bu ñeene wax jalaasa ci lii ne ma fu mu charte da koo jàppee luñ bind in xalla dana fecceeku bii ci loolu moo dilaatun ay ay ay ay mm, ay jafe-jafe kasiratun yu bari fii kalaam yi ci waxam ka xawli ni ko waxam fi jihaad ci buntab jihaad ne wa firaarun xaraam na daw in balaga nam jot na al muslimoon a jullit ñi anis fa genn wàlla xevéer yi walam yablugu te jotuñ isna saraf ko ñaar alfan ci junni xam nga lii bu fekkee ma fu bi jàppee ko comme luñ bind wax ji dafay xaw a jaxasoo xaraam nañu daw bu julli ñi matee genn wàll xéeféer yi xare bu jullit ñi matee genn wàll xéeféer yi daw xaraam na te fukki junni ak ñaar nooy déggee wax buñ matee genn te matuñ fukki junni daw loo cee déggee buñ matul genn wàllu xeeféer yi wala ñu mat fukk junne ak ñaar daw dagan na loolu lay niru waaye demeewul noonu ma foofu mu charte bi dañ koy indi mooy xaraam nañu daw bu jullit ñi matee genn wàllu xeeféer yi ci déggee buñ matul genn wàllu xeeféer yi daw dagan na dégg nga waaye nag il lam yabluxu kon loolu dafa mel ni danga koo bind ne waaye wa in lam yabluxu ndem jotuñ isna asra alfan nga gis ne buñ matee fukki junneeg ñaar daw xaraamaan na kon moo fum sarti dafay yor digéer luñ bind daw xaram na bu jullit ñi matee genn wàll xéeféer yi loo ci déggee foofu mooy buñ matut genn wàll xéeféer yi maanaam bu leen xéeféer yi ëppee matuñ sax seen genn wàll daw dagan na loolu daf mel ni loo bind ba pare nga teg si ne waaye mooy suñ jotut fukki junne ak ñaar buñ xasee mat fukki junne ak ñaar moom buñ matul génn wàll yi féer daw dafay xaram moo tax ma foog musaati boo ko defee comme luñ bind ci lay lënt lënt yi ci waxam gën a fii dafa mel ni ma foog musaati ko compter comme luñ bind moo tax mu waxee nii yow firaarun daw na daw xaraam na in balaxa nam na al muslimuuna genn wàll mu mel dafa bind buñ jotul genn wàll hévéer yi xanaa buñ matul genn wàll xeefeer yi ñoom jullit ñi su boobaa daw dagan na bu fekkee matuñ fukki junne ak ñaar buñ matee fukki junne ak ñaar loo ci déggee daw xaramaan na jëlee matuñ genn wàll xeefeer kon ma foofu mu charte daf mel nu mu bind foofu mooy te wax ji leer waaye boo ko bindul ne daw xaraam na bu jullit ñi jotee genn wàll xeefeer yi te matuñ fukki junne ak ñaar wax ji pour nga dégg ko day am problème kon mafhumu charte da ko compter comme lu mu bind jox ko degré ak doole lu mu bind la déggee ci liñ bind tënk yi am ci liñ bind soppandiku gi ñuy soppandiku ci liñ bind noonu lay defee ci mafhumu charte moo tax gis nga ni mu waxee nii yeneen mafaay mi la nekk mafhum waxat takkalam naa wax nañ àla bandaa ci yenn yi fii maxaalia ci barabam neen yenn ci yi ñuy jàngale bu ñu yeggee ci ba ñu yeggee ci barabam wax nañ ci leeral ko intaha jeex na waqad yusarihu léeg-léeg dana leeral al musannifu taalifkat bi bi mafhumu chart ci mafhumu chart imma benn li xuyurin ngir ay tënk yazkura boo xam ne ko tudd léeg-léegi mafhumu chart bi mu mu bind ko wax dara la nga waroon a dégg mu bind ko lu tax imma benn li xuyurin ngir ay tënk yazkura boo xam ne dana ko tudd aw li furoyin wala ay banqaas yantifa boo xam ne dana ko ci tofal aw yu shabbiha wala mu koy nirule aw xeeri zaalik wala niru yooyu léeg-léegi mu wax dara ma fu mu charte bi xam nga bu ko bu ko bindu li yow xam nga ne noonu la ndax waxoon na la ci commencement téere bi ne la noonu la waaye mu indil ko boppam lan nga cay déggee mu indil ko boppam bind ko ndax lan ndax am na ay tënk-tënk yu ci am mu bëgg laa génnee tënk yooyu wala boo am na yeneen bànqaas yum ci bëgg a teg moo tax mu indiwaat ma fu mu charte boobu wala na yeneen yu bëgg a niru moo tax mu indiwaat ma fu mu charte boobu wala yu mel noonu mi maa si nga xamante dana dikk attan bi wu yeete ala si yéen ci dara mu ngi si allah nu mu soxla bu ñu yeggee ci yooyu danañ ci danañ la ci dana ko yeete gën ko gën koo leeral. dégg nga mu ne wa ushiira junj nañ bi suxeexa ci wéral nañ aw istuxsina wala rafetal nañ ilaa na cheikhan ne ay sëriñ xeyr lazina ñu dul ñi nga xam ne xaddamtuum jiital naa leen saxaa wéral na haada lii aw istasharu leerlu ko wala mu feeñlu ko nee na bu waxee suxixa wéral nañ wala ustuxsina rafetal nañ wala al istixsaan lañ rafetlu wala al asax la gën a wér wala mu saxax lañ gën a wér wala al axsan la gën a rafet maanaam moo xam fenlu la jëfandikoo wala ismu bu ko waxee rek mu ngi ci na mu ne ay sëriñ yoo xam ni xamuñ leen waxu seen tur sëriñ yuñ xamul la ñoom ñoo wéral wax jooju wala ñoo ko rafetal ñu bokkut ak ñeent ci doon muy Maaziri ak Laxami ibnu Rusdi denga nga ak ñooñu ak ibnu Yunus du ñooñu yeneen sëriñ ñoo ñoo wéral wax jooju wala ñoo ko rafetal wala ñoo ñoo ko ñoo ko feeñal dégg nga waaye nag Ibnu ne bu fekkee matière tasix la. dégg nga maanaam suuxee wéral nañ wala al asax li gën a wéral wala mu saxax lañ gën a wéral nee na loolu keneen a ko wax waaye du taalifkat bi bu dee matière istixsaan la ni ki al ahsan wala ustuxsina wala yu demee noonu taalifkat bi moom ci boobu moo gis ne wax ji moom moo gën a rafet ànd na nag mën naa mu ànd ceeg keneen ak yu demee noonu maanaam mu làmboo mu làmboo leneen daal waaye daal moom ci boppam gis-gisam mu ngi ci wax coocu moo tax mu ne xaala wax na ñu Sharaab ibnu Ghazi ne ay ushira juñu nañ ilaa xayri arbaa jëm ci ñi dul ñeent yi almazkuura ne ñu tudd bi lafzi suxiha ci baatu suxiha ñeent ñu tudd mooy ibnu Yunus ak Laxami ak Maziri ak ibnu Rushd ci ñoom lañu juñ dul ñoom lañ namut bu ñu waxee suxiha wéral nañ aw ustuxsira wala rafetal nañ mabni yéeni di ñaar yuñ binaal lil mafooli ñeel mafool مفهوم ما يكون خمول مبني لمفهوم ما كيف جب جي كان خمكو لقصد عدم التبيين نجي جبلو جن جبلو نكر ليرال ينسري نواحلي ولذلك مرة نكر دفنا نكر شيخا أبس أبسري ما نام سري بكن خمول ما ينكر ولا أقرب لجنة جاء إلى تحقيق تدقل ما أن التصحيح نويرال جي بكو تدري فيما يصحيح هو ما يقام دنوكو ويرال أشياء قصرين ب من كلام غيره تي وخو كنن ما نام ممتع الفكر بي lii la jàpp na moo wér waaye waxu keneen waxu keneen la wala istixsaan rafet la ko fii maa yaraahu ci loo xam moom dana ko gisal boppam ma ma ma ihtimaali sumuuli ànd ak jamtalu ak lamboo fiiha ci moom dégg bu fekkee dafa wax ne ustuxsina rafetlu nañ moom ci boppam moo gis ne lii moom mooy li lii gën a rafet ci masala mi dégg nga waaye nag mën naa am am leneen loo xam ni it rafet na wala yi demee noonu mhm. istixsaara mooy lu mu rafetlul boppam tasxiix la mu wéral mooy li nga xam ni waxi keneen la mu mu jël ko wéral ko moom dégg nga istixsaar mën naa nekk lu mu rafetlul boppam waaye am na it ñeneen ñu ñeneen ko rafetlu dégg nga waaye moom gis na ne moom wax ji la tànn muy wax ji nga xam ni moom moo gën a rafet teewul am yeneen wax yu mu sukkandiku wala yeneen wax yoo xam ni it xëy na mel na ni wax jooju waxal yu àbbaru léeg-léeg ñu firee bil wasfi ci ismu mooy melal léeg-léeg mu firee mu waxee ko noonu nekkal asax li gën a wér wala mu sax lañ wéral wala ahsan li gën a rafet wala boo ustoxsina rafetlu nañ kooku fenlu la suuxexa wéral nañ fenlu la istixsaan daal mooy loo xam ne moom moo ko gisal boppam waaye nag amaana leneen dugg ci waxi keneen wala am leneen wax ju mel noonu wala yu demee noonu na mucc ne bii rek mooy gën a rafet tasxiix nag mooy moom waxi keneen la moom mu jël ko jàpp ne mooy lu wér dégg nga ubi taraddut yi danañ namm ci matière taraddut li taraddudil mutaaxiriina ngir déng-déng ak way mujj ya fi naqli ci toxalaat woy njëkk yee ci lan mooy ngir mi toxal buñ ko waxee mooy li mooy mag borom xam-xam njëkk yee masal mi bu digu ne masala mii mooy ngiram Maalik wala lii moom mooy ngir mi su keneen wax leneen ne lii mooy ngir mi wax leneen lii mooy ngir mi ñu mujj ñi buñ ñëwee toxal wax yooyu yëpp dégg ànd ak déng-déng ñoom carrément ci ban mooy mazhab bi loolu loolu day wax ne tëraddut ñu njëkk ña wax nañ ca waaye ku nekk dafa jël benn wax jàpp ne loolu mooy ngiram ma ngir mi mooy li lëng daal ci masala bi ñoom ñu mujj ñi toxal wax yooyu yëpp waaye ba léegi ñoom it amaguñ ban la jàpp ci wax yooyu ñoom am nañ ci déng-déng loolu moo tax mu ne tëraddut lam ci na mu mooy déng-déng wuy mujj fi naqali ci toxal ak borom xam-xam yu njëkk yi naqlu mooy lañ jàpp ne mooy ngir mi loolu na mu ci naqlu gi euh, dégg na mu ci ne euh, dañuy déng-déng ndax am na wax ñu njëkk ñëw wax nañ ci déet ñu njëkk wax nañ ci ku nekk jël benn wax dëgëral ko ñoom ñu ñëw xamul ba ñu wax lañ ci gën a jàpp loolu mooy taraddu am lañ ci déng-déng fi naqli ci toxal way njëkk ña aw li adami nas sil mutaqaddimina wala ngir ñàkk teg sig way jiitu ña dégg su fekkee ñoom ñu mujj ñi amuñ ci masalami mi texte si ñu way jiitu ñi gisuñ ñu njëkk ñu wax ci dara te texte masala mi ñoom am nañ ci déng-déng amu jàpp guñ ci lu wóor am nañ ci déng-déng gërëm nañ ci daal te amuñ ci texte si ñu njëkk ña loolu it day wax tëradut waaye ñaar yëpp foofu dégg nga dégg am ci ñu njëkk ñi toxal nañ ci wax waaye ku nekk am loo dafa am wax joo toxal ñoom ñu indi wax yooyu yëpp ñoom ñu mujj ñi gis nañu wax yooyu yëpp mais xamaguñ ban lañ ci jàpp loolu taraddut la dégg nga dégg nga gërëmaande la wala boog ñu njëkk ña amuñ teg texte bu jugee ci ñoom waaye ba léegi am nañ ngërëmaande ci masala mi loolu it taraddut la bu fekkee ne ñu njëkk ñi amuñ texte bu jógee ci moom waaye ñu mujj ñi traité nañu masal mi ba mu baax ba mu leer foofu foofu taraddud amu fa ndax ngeen maane amu fa moo tax bi taraddud danañ juñu ci matière taraddud di taraddud mu tàqale ngir dégg nga dégg nga way mujj ñi fi naqali ci toxal toxal lan mooy ngir mi maanaam lan mooy masala mi bu ci gën a wóor aw ya adami nasil mutaqaddimi la wala ngir ñàkk texte way njëkk ña ànd ak di déng déng ci masala mi foofu foofu déng déng ànd ci yaa ni lu mun a mu àndoon muy si dara juñu bi taraddud ci déng-déng li am leen ñeel ñaari mbir ahaduma benn bi taraddudul mutaaxiriina mooy déng-déng way mujj yi fi naqari ci toxalaan mutaqaddimiina ci way njëkk ñi maanaam naqaru mooy lan mooy ngir mi ban masala mooy lu wér ci masala mi wa saani ñaareel ba taraddudul mutaaxiriina mooy déng-déng way mujj ñi li adami nasil mutaqaddimiina ngir ñàkk teg si way njëkk ña amuñ ci teg te ñoom ñu ngi ciy déng-déng فقولوا وهم أولاد من الناس المتقدمين ولن غير ياك تكسي وين جيك ني معطوف دنج كو عطف على قولي تي وهم في النقل تي توخال دنج دنج وي مجي تي توخال ولا سي ياك تكسي وي جيك ني مانام ني دنج دنج تكسي تميت ولا يسود وير عطف عطف على قولي تي وهم لترددي ne dinañ juñu ci matière tradu li tradu mutaqqir ngir jeng de aw li adami nas wala ngeen ñàkk texte rek su boobaa dafa mel ni ku ñàkk texte rek bu ñu amul texte si way njëkk ñi rek am nañ déng-déng di lee terete nañ masalim fekk demeewul noonu moo tax mu ne duñ ko wéet duñ ko atfa ala qawli ci yoo xam ni taraatara dudul mutaaxirina ngir déng-déng way mujj ñi li àndoo ndax moom duñu wax ne li ngir déng-déng way mujj ñi wala ngir ñàkk texte duñu wax loolu li àndoo ndax loolu yàqta di day waral àndoo ne moom yu suru لعدم النص المتقدم من غير ياك تاكسي سي وي مجني وي لم يحصل دير امور من المتاخرين تي وي مجني تردد دنگ دنگ وليس تمر من يكون كذلك كم نون لفقر معنى التردد غير ياك ياك معنى دنگ دنگ الذي ياخن هو تحير موي گرم اس غير لا تحير دير گرم مع تحرير المتاخرين عندك سگگ وي مجني سگ مسلمي المقتدى ني ري بيم ولا سيما رواتنا am saalu man misaal yi nga xam ne dama jiitu nañ ni imam la xamee ak maasiré ak ñooñu kon mu ne doo wax ne su waxee taraddut lim ci na moom mooy way njëkk ña amuñ benn texte bu jugee ci moom ci ñoom dile way ñi segg nañ masara mi ba leeral loolu du taraddut su waxee taraddut mu ngi ci namm way njëkk ña toxal nañ ci masala mi ay wax yoo xam ni bu nekk wax nañ loolu mooy ngir mi way mujj yi ñëw am problème ci yooyu ban nañ ciy jàpp kon ñoom seggi guñ affaire bi ba mu leer si ñoom kooku am na tara taradut wala boobu way njëkk yi amuñ benn texte ci masala mi bu jugee ci ñoom te ñu mujj ñëwit traité wuñ masala mi am nañ ci problème ab déng-déng su boobaa loolu lañuy wax déng-déng ndax amuñ texte ci way njëkk ña te am nañ ci problème wala boog am nañ ay texte ci way njëkk waaye toxal la yu wutee te am nañ ci problème bu dee amuñ texte ci way njëkk ñi rek waaye ñoom segg nañ masala mi su boobaa ñu wax ne am nañ taradul parce que amuñ taradul ndax amuñ gélmaane amuñ jafe-jafe parce que leeral nañ masala mi dina amuñ ci texte ci way ci way njëkk ñi nee na wa taradul mutaaxirina dégg nga dégg nga way mujj ñi fi naqali ci toxal guñ toxalee ci way njëkk ya woo loolu ixtilaafu mooy wutee gi wutee dégg nga dégg nga fil azwi ci askane lil mazhabi ñeel ngir mi al musamma buñ tuddee bi turuqi ci yoon dégg nga wutee gi ñu wutee ci askane gi ñu askane masala mi ngir mi askane gu mu lañ tuddee turuq yoon yi dégg turuq mooy firi yoon إيه، مصر بي النيلة كاين النيلة كاين النيلة دين لولو لولو ما موي عصو أسكرين نكو مذهبي لكن يون يون أسكرين مس وحي بري يون يتروقي وقالوا أنا في التوديع في التوديع وأنا في التوديع هنا الطريقة يون عبارة من كفر عن شيخ سرين أو شيوخ ولا أي yarawna danañ gis almazhaba ngir mi kulluhu lépp ala ma naqulu ci lañ toxal tariqa mooy sëriñ bi gis ne li mu wax loolay ngir mi sëriñ bee gis ne la mu wax moom mooy ngir mi sëriñ bee gis ne loolu mooy wax la mu wax moom mooy ngir mi dégg nga loolu loolu taraddud la dégg nga loolu loolu taraddud la dégg nga mu ne fatturuqu yoon yi ibaaratun mën nañ koo firi an ixtilaafi shuyuuxi ci wuteeg sëriñ yi fii kayfiyati naqlil mazhabi ci nan la ñuy toxalee ngir mi maanaam lan mooy toxalam ngir mi maanaam lan mooy ngir mi ci masala mi kii ne lii mooy ngir mi kii ne lee lañ toxal kene lee lañ toxal kene lee lañ ci toxal su ko defee foofu am na problème kon ñoom lañ toxal jëlee ci sëriñ si dafa wuute su boobaa ñoom am nañ taraddut ci masala mi dégg <clears throat> wal awla li gën a yee aljamu mooy boole bay na turuxi diggante yoon yi maa am kana la jàppale bu dee dañoo jëlee ci sëriñ ci ay wax yu wutee ñu ne lii mooy ngir mi kii na lii kii na lii la suñ mënee boole wax yi ba mu nekk benn wax loolu moo gën dégg nga والطريق يون التي بنقن فيها نكن زيادة يوكو راجعة أجل لنقل على خيرات الرموم كي نخمني أندنا وخ يوكو تلو نيني وخط لول موغر لنقل لأن الجميع نحن نبسقات نيوور لن تكي نخمني يوور نأندي لو خمني أندي ولين كل ولين كي نقول وحاسر دعوانا في دغ لا خمني موم لا موم موم موي هوتيب اجي داق جا شهاده موي سيدارانا فينتي داق dégg nga ki nga xam ni moo ne wax ji moom dañ koy dàq moo war a àndi lu dàq wax jooju ndem ku wóor la rek andi na wax joo xam ni nekkul si sa wax nga bëgg a dàq waxam da war a andi preuve buy wane ne waxam ji wax ju dàq la bu dul loolu yow sa wax jooju moo du tegu fenn ndax kuy saxal moom lañ jiital ci kuy dàq kon loolu la namm ci <coughs> ci taradut waaye wala mees ko tudd al musannifu taalif kayitkat bi alaamatan màndarga yu mayisu dana ràññale bi ci moom benn taradduday ni diggante ñaari taraddud yi ila ana saani lu mooy ne bu ñaareel bi te mooy taraddud ngir ñàkk texte ci way njëkk ña moo tax ñu am am ngir maana ci masala mi ngir ñàkk am ñàkk njëkk ña kooku àqalu moo gën a néew wayaati dana dikk incha allah nem soom yàlla atan bi yeete ala zalika ci loolu fii maalam yu nabbi ci loo xam ne nii mm, xeet xeetewu daal ci moom ashaarihu aji sharha ji dégg nga yi nga xam ni nii mm, buñ demee ba ba mu wax taraddut moom dana leeral lii ban façon taraddut la dégg nga euh, bu fekkee ñeneen ñu doon sharha leeral luñ ko moom dina ko leeral waqad zakara tudd na ibnu xaasi ibnu xaasi baadama taqaddama lenn ci li nga xam ne euh, jiit woon na dégg Ibnu Xaasi tudd na yenn ci nga xam ne jiitoon na kon daal su fekkee borom xam-xam yi nañ ci ñu njëkk ña ay wax kii ne lii mooy ngir mi kii ne lii mooy ngir mi mooy ngir mi te ñoom ñu am ngëlmaane ci affaire boobu ku nekk toxal dara su boobaa loolu taradu lañ koy tuddee bu dee borom xam-xam amuñ teg ci ci way njëkk ña te am nañ problème su boobaa loolu it lañ koy tuddee ñaari taraddud yooyu mu am dégg nga waaye bu fekkee ñoom seen bopp ñoo yemoo daraja dal di wutee kii ne lii moo siw kii ne lii moo siw kii ne lii moo siiw euh, loolu xilaaf la waxoon lañ koy tuddee comme nañ ko jàngalee ci dars bi ci gannaaw kon su boobaa dafa mel ni fii kon liñ ci wax mooy mm, dañoo dañoo toxalee ay wax ci borom xam-xam njëkk yi ku nekk dëgëral benn wax ne loolu mooy ngir mi te ñu am ci problème ñoom mm, ci ci loolu. dégg nga mu ne qultu wax naa waqad yaqoo léeg-léeg mu tàbbi ataradudu deng deng benn kalaami musal musanif ci diggante waxu taalifkat bi bi xilaafi ma zukira wuteeg luñ tudd kama fi qawli ni ki ci waxam fi axiri kitaabil aqliya ci mujjëg téeréeb atte yi new fi tamkiini daawa nekk na ci nangu kalaame li xaayibin ñeen aji faddu bila wakaalitin ci lu dul aji wakil koo xam ni moo koy taxaw taradudun deng deng dégg nga <clears throat> nee na dégg dégg dégg léegi-léegi mu wax ko te du benn si ñaar yi du dégg dégg way mujj yi ci toxal gi ñu toxalee ci way njëkk yi du ñàkk teg ci ci wayu njëkk yi moo tax ñu dégg dégg déedéet léegi-léegi dana wax dégg dégg te du benn si ñaar yooyu ki ñu wax ne kalaame koo xam ni euh, nekkul fii awut amul kenn koo taxaw loolu am nañ ci dégg dégg nee na dégg dégg gu wutee gu bëri la ci nam xilaaf la maanaam xilaaf mooy ay borom xam-xam yee mu benn daraja daal di wute comme niñ ko jànge woon ci dar su passé wa fi xawli ci waxam fi kitaabi shahadaat si téere seede yi wayn shahida nem seedeel na ko saaneen ku ñaareel fa fi iktifaay ndax doylu gu ñuy doylu bi tazkiyati si sellal al ulaa gu njëkk ga ndax loolu rek doy na maanaam kii mandul ko kii nag diw ku mandu la keneen ñoo andi beneen seede ndax bu njëkk ba rek doy na wala bii dañ koy kontewaat tara dund na déng déng maanaam wutee gi na ci fayna taradut naka deng deng fi zalika ci loolu laysa nekkul min al qisme ne di bokk si ñaari xaaj al mazkure ne yeñ tudd wa innama hu nak moom li kasratil xilaaf yi ngir bëri wutee fi masalateen si ñaari masala yi rek la ci namm maanaam ñaari masala yooyu borom xam-xam wutee nañ ci wutee yu bëri buñ ci tollee dina leer wala alam yàlla rek mu aji xam kon léeg-léeg mu wax taradut te du benn si ñaari ñu wax waaye taradut googu kasratul xilaaf lañ ci namm bëri wutee xilaaf nag waxoon nañ ne mooy ay borom xam-xam yu tolloo ab daraja ku nekk siwal ab wax wala dëgëral ab wax loolu xilaaf lañ koy tuddee faroon li ab bànqaas la hal yajuz dana dagan an yuqaal ñu wax fii tariqin ci yoon mina turuqi ci yoon ne haada li mazhabu malik mooy ngir malik tariq mooy nga jëlee ci ay borom xam-xam ab wax kee jëlee ci keneen ab wax kee jëlee ci keneen ab wax kee jëlee ci keneen ab wax yoon yooyu ñooy turuqi ndax nga droit li nga jële sëriñ bi rek nga ne lii mooy ngir ngiram Malick la nga jëlee eh, ci keneen ñu ne loolu mooy ngiram ñëpp ku nekk dafa askane ngir mi waxam ndax nga droit yow nga ne lii mooy ngiram Malick mu ne su ila laaj ne ibnu arafa ibnu arafa la jus ndax dana dëggan an yu qaala ñu wax fii tariqin ci benn yoon mi ne ci yoon yi yoon yi toxal yi ne hada lii mazhabu Malick mooy ngiram Malick fa ajaaba mu tontu moom ibnu arafa mu ne bi ànd man nag ka nga xam ne la ñaan la ab xam-xam bi xawaayidi mazhab bi ci ponk ngir mi wa mashhuuri aqwaal yi ak la siiw ci waxam wa tarjihi ak lañ lëngal wal xiyaas ak lañ mooy xiyaas yajuus dana dagan la ñaan ko daalika loolu baada basli wusii gannaaw bu mu yullee kattanam yépp fi tazakur ci nafat di fàttaliku fi xawaayidi mazhab bi ci ponk ngir mi wa ma lam yakun ku nekkul kazaalika comme noonu laa yajuusu du dagan la ñeel ko daalika loolu illaa an yanzuhu lu muy mu askane ko illaa man xaaloo ca ki nga xam ne wax na ko xablu wa njëkk ko moo tax turuq mooy li nga jëlee ci ñële njëkk kal maaziri ni ki maaziri wa ibnu rusdi ak ibnu rusdi wa xeyrim ak ñu dul ñoom ibnu arafa def ne su fekkee yow xam nga ponk ngiram maalik xam yi siw ci wax ja mën a lëngal mën a qiyaas boo nafatee ponk ngir mi xoolaat ci bu baax mën ngaa jël benn ci wax yi yooyu nga xam ni wax yuñ toxalee ci ay mag ñu koy tuddee a nga ne lii mooy ngiram Malik waaye boo yeggu ci degré boobu yow dagunut nga naan lii mooy ngiram Malik ne lii la di wax ni ki lii la Maziri wax wala lii la Ibn wax wala lii la keneen wax ndax man naa am du loolu mooy ngir mi نقل تخلنا ذلك لأنه تموم جلوكو تي ابن عرفة البرزولي في أوائل كتابي تي كما اسمه تيرم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته